soo ñëwee fekk ci loolu loolu di kaamil di ab téere gu wér péng yàlla moom moo leen ko jagleel te nag nit ki li ko yàlla jagleel danga ko koy nangul ku mel ni ñoom maram kayre man bu ñu waxee à chaque fois dama koy téye ba soo gisee léegi sax euh, li nga xamante ne nii moom moo di taw bi ñoom bu ñu la waxee ne la tey ji dafay taw hmm. toogal nga xaar te xam ne taw bi di nga ko ci gis c'est très rare très rare nga gis ñoom ñu wax journée boobu noonu tawul parce que yàlla ji may na leen xel mi may na leen jumtuwaay jamono dox na ba ba toll foofu kon tey problème mu weer bi waratula doon problème boo xamante ni daf ñuy diviser ñun umma islamique bi. Mhm. daf ñuy diviser ñun umma islamique bi muy euh, kàddu yi nga xam ne daal euh, am na solo lool ñu bàyyi ji xel umma islamique kenn mënu ko diviser waaye tam. wuuteeg borom xam-xam yi ak euh, yërmande la ci ñun ixtilaaful ulama rahma euh, bala ñuy ñëwaat ci weer weeg passation de service bu Ousmane Sonko Bintalay gay mel na ni euh, l'avocat Juan Branco mi mm-hmm. nekk foofu la ca France àdduna jagleel ko Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne daal mhm. mu ngi yaakaar ne duñu mës a trahir seenu askan mu ngi yaakaar ne itam dinañu euh, taxaw ci lépp loo xam ne dana fi dindi li fi nekkoon moom euh, avocat bi di euh, Juan Branco mhm. nee na Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñëw nañu ci nguur gi ci jamono ji nga xamee ne def nañu ay année ay ati ati at ci li nga xam moom moo di ci opposition bi at yooyu nga xam ne jot nañu ko def nag li ci gën a euh, marqué wu wala bokk li ci gën a fës bokk na ci tëjum kaso goo xam ne daal euh, takk woon na ci loolu waaye nag jamono jile jël nañu nguur gi officiellement ñu installé leen tey ci lundi 8 avril bile moom avocat Juan Branco moom nag bokkoon na ci ñu doon jàppal tànk kii di Ousmane foofu foofule dafa daal di publier ab textam daal di ci euh, artu mu ngi mel ni ku ci euh, artu bokk di leen di leen di leen xamal li nga xam ne moo di seen responsabilité euh, ci niñ ko war a jëlee mu ne nag jamono jëlee ñu ngi ci jamonoy transition jamonoy transition weesu nañu ko. maanaam weesu nañ jamono ji nga xam ne ci lañ doon def transition beeg la ci aju. Mm-hmm. fi mu nekk nii nag li fi des mooy na liggéey bi door. le mm-hmm. travail commence weesu nañ jamono transition bi léegi nag liggéey ci la ñu toll moom Juan Branco mooy àddu euh, nee na euh, li ki nga xam moo di Ousmane Sonko. amul temps wu dem retrouver aw askanam bi mu génnee ci kaso bi ba tey gis ngeen ko demul ci njabootam gi dalluwul dafa ñëw rek attaqué wu dem ci li nga xam moo di campagne électorale yi de même que kii di euh, ki nga xam moom moo di le président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk euh, ginnaaw bi nga xamee ne génn nga fa nga nekkoon amuloo temps wu sax daal di dem gis sa njaboot waaye dañoo daal di dem nekk ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamee ne nag fal nañu leen ci bopp réew mi di Sénégal ba ñu leen libéré ba léegi nee na booy xool seeni xar kanam mm-hmm. di nga gis ci ñoom ak coono mm-hmm. maanaam dangay ngay da ngay sentir kat sonn nañu trop waaye ragal nañu wor seen askan mm-hmm. ragal nañu euh, gaañ seen askan ragal nañu itam def loo xam ne day tax euh, seen askan ñàkkaat yaakaar gañu ñàkkoon yaakaar ba dénk leen réew mi mu ne waaye nag loolu bu mu leen teree taxaw fi ñu taxaw ndaxte àdduna bi ñu ngi leen di xool ñu ngi leen teg bët di leen xool jamono jile moom xawaan baram mooy wax ba tey nee na àdduna bi yemul ci xool leen waaye àdduna bi itam mu ngi leen di jàppale àdduna boobu itam mu ngi leen di xaar àdduna bi itam ñu ngi yaakaar ci ñoom ñaar muy ay euh, kàddu yu foor beneen bi itam mu ne euh, ci ñoom ñi nga xam ne ñoo di Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu ngi yaakaar ñu daal di indiwaat beneen dundin beneen nouvelle air la ko tuddee. Mm-hmm. Euh, ère de rupture maanaam ère boo xam ne daal dañuy faxas li fi nekkoon ba mu set indi leneen loo xam ne moom la ñuy tuddee euh, souverainisation des peuples moom noonu la ko daal di tuddee ci nasaraan. nga xam ne askan askan bi ci boppam dañuy moom seen bopp te seen alal di ko jëfandikool seen bopp. kenn du leen wan fi ngeen di jaar te itam kenn du téye seen alal di ko def nu mu leen noo xam ne daal noonu la leen neexee ñoom te askan bi duñ ci jot loolu dafay daal di jeex ay accordu pêche yoo xam ne dafay nekk di yàq lu bari mm-hmm. lutte contre l'impunité en passant parcelle de la corruption dindi fi li ñu tuddee impunité jaaree ko ci wàllu corruption ak li ci adu maanaam mbuxum euh, fexe ba suñu ressources naturelles yi ñu daal ci euh, taxaw investir ci wàllu recherche ak éducation fexe itam ba euh, wàllu dund mën a doy ñu mën cee am loo xam ne dañ danañ ci mën a dundal suñu bopp bay dundal ñeneen mhm. waaye itam dindi fi li ñuy tuddee misère ci li nga xam ne moom moo di ci askanu Sénégal indiwaat Sénégal mu ubbiku ci àdduna wërngal këpp ba ñëpp mën cee jot mhm. mu ne nag Sénégal xam leen ne àdduna mu ngi leen di xool jamono jile ba noppi ne waaw àdduna itam mu ngi leen di xaar di xaar lu bari ci yéen moom Juan Branco euh, mu ne ñoom de xam nañ ñu ci seen côté euh, waaye itam pare nañ pour euh, maanaam pour déballer le sommet comme nous l'avons depuis un an été. Mm-hmm. ñoom pare nañu pour dindi ñu ci li nga xam ne moom moo di ci yoon bi ñu nekk waaye ñun nag dinañu taxaw temm dinañu taxaw ak suñu doole dinañu taxaw ci lépp loo xam ne daal dafay tax. la ñeneen bëgg du fi amee ñun li ñu soxla rek mooy li jëm ci kanam daal di am ñu ngi yaakaar ni euh, nous ne supportons pas la trahison ñu ngi yaakaar ni daal euh, trahison dootu fi amati dana fi jeex tàkk euh, moo tax mu ne à l'amour et au lien qu'ils nous ont généré au bonheur qu'ils nous ci mbëggeel gi nga xam ne moom lañ baaxee tasaare ko ci ñun ba mu euh, bari lool waaye tam ci bonheur bu bari bi nga xam ne moom la ñu offrir ñoom ñooñu le au sommet que l'on yoon bu rafet bi ñu tracé defar ko ba mu baax tabax ko moom Juan Branco mu wax ko ci Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye Faye au devenir que nous nous euh, euh, que nous apprêtons à tisser a-t-il écrit moom Juan Branco avocat français bi léegi mu yëkkati ay kàddu yu am solo ay kàddu nit ku responsable quand même ko ay nit yu te responsabilité bu diis euh, bintalaay Mhm. mu daal di nekk ay kàddu yoo xamante xaar nañ ko xaar nañ ko ci moom en tant que avocat ki nga xamante ne ni moom moo di Ousmane Sonko moom Juan Branco mii daal di yëkkati kàddu yi daal di koy wax yell na mu yëkkati ko daal di ko koy wax le pourquoi dafa nekk avocat te avocat nekkul ni dangay am problème rek mu ñëw taxawu la mais avocat doon na koo xamante ne moom moo njëkk Alioune Badara. ci mhm. ki lay xelal ci ki lay conseiller ci ki nga xamante ne moo naan laan fii ngay teg sa tànk fële ngay teggi sa tànk ci yoon bi nga mën a jaar bu ko defee nga daal di am ndam mhm. bu yëkkatee lettre bi nga xamante ne lettre de motivation la jagleel ko ki nga xamante ne moom moo di la président ba Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko di coalition boobee mu daal di leen di ñaax wax leen ci yoon bi nga xamante ne moom la ñu mën a jaar du ñu def lu dul daal di koy rafetlu xam ne avoca bu ci nekk lii la ñuy xaar ci sa client nga daal di koy ñaax teg ko ci yoon ndaxte moom nag quoi qu'on puisse doon na doomu France waaye tamit doon na koo xamante ne jàpp na ci combat Ousmane Sonko ko mu jël avion jël gaal ba ñu jàpp ko fi dugal ko ci kaso bi ba bàyyiwaat ko yóbbuwaat ko ci aéroport tegal ko ca vol daal di koy daal daal di koy yóbbu kon Juan Branco mi doon na koo xamante ne bu waxee c'est très intéressant moom mu daal di wax parce que gis nañ combat bi moom ni mu ko porté woon waaye tamit ñaax ki nga xamante ne nii ñaax na ko kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye da leen di gën a doole xam nga Aline Badara le pouvoir rend fou. par yenn saa yi dafay baax genre yu mel ni Juan Branco wala ñi nga xamante ne nii ay charge lañu jug di yëkkati seen kàddu jàkkaarloo ak état gi nga xamante ne moo fi nekk gën leen a ñaax gis nga nit ki da nga koy galvaniser sax bu ko defee mu daal di gën a xool ana naka lay taxawaatee ak naka la naka naka naka lay daal di defee lii doon na loo xamante ne daal man gis naa ne waruñu ko jël avec des pincettes waaye suñ ci tegoo parce que dafa ne leen àddina wërngal këpp ñoo ngi tijji seen i gët di leen xool waaye àddina wërngal këpp tamit ñoo ngi may ñoo ngi leen di may nopp kon erreur waru leen te it waruñaa trahir ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan bi leen élection yi passé du base politique moo fal kenn. Mhm. élection yi passé sénégalais yi ñoom ñoo génn joxe seenub kàddu ne lii la ñu bëgg ñoom ñoo bëgg rupture ñoo bëgg changement. Mhm. base politique falul kenn kon nag kon rek waaye bu kenn trahir askanu Sénégal. Mhm. parce que doon na askan boo xamante ne jooy na sëngeem na tristre na te instant bii ne résultat rek lay xaar. Hmm. résultat la ñu xaar ni ko Juan Branco waxee alaaji Papa Thiam soo amee ku jàppandi ci buumu jokkoo gi ñu bàyyi leen ak jotaay bi ñoom itam ñu daal di fësal seen yéene ci 78 535 92 92 su ma juumul ndax euh, numéro bi yenn saa yi mu réer ci sama bopp bi 78 535 92 mooy euh, suñu buumu jokkoo